Yeah. toujours dans votre acte du jour de ce 5 septembre 2024 Ginnaw bi nga gis nañu chamboulement ci walu magistrature gis chamboulement ci walu police bi biyon ci walu gendarmerie bi lañu gis li nga xamanteni dal moy chamboulement ginnaaw bi nga xamante ni ay nouvelles décisions la yo xamanteni jël nañ ko suñu sukkandikoo ci li nga xamanteni moy suñu ay renseignements ginnaaw bouleversement récent bi nga xamanteni ni nañ ko ci biir police nationale jamono ji ci biir gendarmerie nationale mo def objet ben vaste réaménagement ginnaaw ki nga xamanteni moy le général Martin Faye du haut commandant de la gendarmerie nek maréchaussée récemment ñu procédé ko une ko ci ben série de nouvelles nominations bo xamanteni dafa touché yi di brigade territoriale di brigade spéciale ak li nga xamanteni moy brigade de recherche diarlé ko fii ci Sénégal ginnaw suñu sukkundiko ci suñu. Puis ay changement yo xamanteni mi ngi marqué ben réorganisation significative jëmale ko qui ci ay structure yo xamanteni mo moo soxal wàllu gendarmerie ginnaaw bu mu donné ben ajustement majeur mu concerner lii di brigade de recherche bu chor bi nga xamanteni actuel chef de service dañ ko transféré fofu ci brigade de recherche bu Dakar bu nekk ca Faidherbe ginnaaw loolu li di brigade de recherche bi nga xamanteni mo nek fofu ci ca Kaolack Saly Thiès ak Saint-Louis ñom dal dañu gis également ay arrivé jëmale ko daal ci ay nouveaux responsables ginnaaw bu mu donné nak ay mouvement yo xamanteni dafa viser pour ñu renforcer li di efficace efficacité opérationnelle jëmle ko dal ci optimiser les plus performances bo xamanteni ci ay différents unités la yi nga xamanteni mo nek ci walu gendarmerie ginnaw bu mu le frété ben volontaire bo xamanteni da fay moderniser ay services de sécurité ba nopi adapté wu jëm ci ay ressources humaines jaarle ko dal ci ay besoins spécifiques bo xamanteni région bu nek amna ko muy chamboulement bu bes bi nga xamanteni dal noté nañ ko ci walu gendarmerie ginnaw police ak magistrature